waaw oto yu bees yi moom nemmeeku nañ ko man maa ngi koy gis sax am naa sama xarit boo xam ne ci la yor man bi ma ko laajee daf ne ma lii bon dañ ko fee dugal waaye nag damaa xamul état la damaa xamul sëriñ si la xaw ma dégg naa daal ay genre mini car dañuy daw Dakar dégg naa ñu koy wax affaire transport nag ñoo ngi secteur transport en la intéressé lu baax la nag ndax wax dëgg yàlla am Touba war naa mën a am euh, ay oto yoo xam ne ni yu confortable la par rapport yi nga xam ne ñoo fi mën a nekk loolu moom aussi sant nañ ci baax daal dégg naa ko daal man ñu ne dañ koo joxe dañ koo joxe pour ay traite di ko fay loolu daal laa am. waaw oto yu bees yi de moom wax dëgg yàlla ni ñu ko jàngate mooy ñun suñu liggéey la yàq ndax oto yu bees ba fekkoon ne dañoo jox cër wala ñu bëgg loo xamante ne maanaam luy doxal société bi la kon di jékki-jékki rek indi seen i oto au lieu ñu tàggu njiit yi fi nekk mais njiit yi fi nekk dañoo xëy xëy rek seen oto yi nii ñu taxawee noonu la seeni mais fekkoon ne dañuy indi oto yu baax sax ñu sax mais oto yi ñu indi oto yi du daa baaxut fii waaw bu fekkoon oto yu baax la sax mais oto yoo xamante ni comme ay xob ba pare nekk ay gaz nekk essence ñu boole ko mais non non du loolu du loolu de sikkaluñ ko ñun buñ doon indi oto yu baax ñu mais oto yu bon yi nga xam ne bu fekkoon oto yu baax lañ fi comme ñu indi fi lu oto herbien yi nga suñu temps bi la du kon du garaaw suñu paas ñun 200 la ñoom 150 la ñoon ñoo dañu yàqal ñu rek liñ bëgg mais li ñu am li ñuy am ñun suñ borom moo ñu koy jox li ñu am yàlla suñ borom moo ñu koy jox mais li ñu li nga xam ne dañu koy xañ yàlla ñu koy xañ xañ dara dara mënuñu ñu ko xañ ñun lu baax lañ bëgg ñun dañoo nekk ci dëkk sëñ Touba bu sell bi dafa nekk di liggéeyal yàlla di liggéeyal yonte bi li sëñ Touba santaane ñu koy def li muy tere ñu koy bàyyi def leen loo xamante ne nako sa du nopp ma ko jàngate mooy ñun ñi ñu jiite ñoo ñu respecté wul parce que ñun mënuñu am fii kër sëñ am sa garage muy garage bu légal am ay kayit ñu tëb tëb indi ay oto teg ko suñu wet ñuy yeb loo xam ne wàññi suñu tarif di yeb di ñu romb gos droite amuñu si benn euh, avertissement amuñu yëgaluñ ñu dara waxuñu dara tëb ay indi seen i oto ñi jiite ñoo ñu respecté wul rek loolu la du leneen. ñaari paas yi ñun 200 la ñuy fayee fii ak janatu wala Madiana mooy suñu tarif mais ñoom 150 la ñuy fayee ko loolu doyul mais ñoom fi ñuy yem ñoom dañ koy romb lu bëri. non pour cokkaas ñu la du loolu du nangu client yi sax taxu leen a jóg mais cokkaas ñu parce que dañoo proposé woon vert blanc ñu bañ ci ginnaaw war nga ko kii loolu moo tax léegi ñu indi lii pour cokkaas ñu mais ñun lii duñu am parce que ñun li ñu war am yàlla moo ñu koy jox. maanaam euh, liñ ci wax ñun suñu wàllu bopp nga xam ne moo fi moo ci suñu wàll Touba xéewal yëpp Touba la jëm si euh, genn góor daana wax euh, lu baax fu mu nekk dafay noppalu waaye bu bu noppalikoo rek Touba lay jëm si. ndax Touba moo yeyoo lu baax lu baax lu jóg lu ne Touba la jëm si xanaa kay confiance yi ca biir ndax euh, confiance yi mooy da ngay koo xam ne dafa muritu ba wàcc di taalu taalube dëkk ci dëkk bi di taalube sëñ Bamba yaakaar sëñ Bamba yaa ngi dégg déglu li ma la bu baax de nga am sa benn oto mu lay dawal transport boo xamante ne sa dépasse su kër nga cay daw xañ na sa dooma ko moom wala sa jarbaata ko yor wala keneen ko yor mu lay dawal wàllu transport wala ku nekk ci bitim réew bàyyi fi jarbaatam wala mu bàyyi fi rakkam mu yoral ko benn oto boo xam ne euh, wàllu transport la ko def mu ci wut dépasse euh, tata bi biñ ñëwee xañuñu kenn dara ndax ànd nañoo oto yu ndaw yi di daw ànd nañoo oto yi ne ci dëkk bi di daw yàqaluñ leen dara kenn ko ci nekk ñu ne ci seen jàmm liñ bañ kay mooy ki nga xamante ne amut lu may wenn yet di ko sànnee nga indi sa oto di borom doole toog ci kawam. ne ko léegi sa oto bii kat dama ko éliminer te Touba moom dafa am lu mu baaxoo loo xamante ne nun moom lañ xam lu tax moom la ñuy wax nag ndax bu ñu waxee Touba spécial dañoo war a xam lan mooy Touba spécial ndax yàgg nañoo gis oto jóge Gàmbi daw dugg Touba raw oto jóge Mauritanie daw dugg Touba raw fu oto jógee bu dawee dugg Touba ñu ne raw na jamono Sëñ ba léegi ñoo ngi ko fi gis jamono Sëñ Baara jamono Mara ñi fi jaar ñëpp lu dugg Touba ci wàllu forot wala leen raw na. du concours du concours dëkk bi moo taxee noonu parce que deuxième capitale Sénégal Touba. Sénégal dañoo wax ne euh, Dakar mooy première capitale Touba mooy deuxième capitale lu ne yelloo na fi suñ Touba waaye ma wax ne client bi toog xam nguur nguur oto ak chauffeur bi nga xam ne dafa jaar transport xam xam li oto xam transport en commun duñ bokk ndax kiy toog moom mu neex rek loolu la xam mais kaaraange ak sécurité bi chauffeur bi moo koy xam parce que man la nga naan sept ans Dakar Diobé transport en commun ba yàlla daf may taxi ma ko siikal baax na mais ndax Touba fa nekk dëkk boo xam na euh, deuxième ville du Sénégal deuxième ville du Sénégal kon yaakaar naa ne Touba bon li ñu wóolu sëñ bi waxoon rek lépp lu baax lu nekk fii la jëm si te incha ne 25 moo ñëwagum dañu ñaan mu nekk ay centaine ci kàttanu yàlla. concurrence Touba dafa war a avancé <laughs> Touba dafa <laughs> moom moom toujours première fu ñu lu baax lu nekk fii la jëm si kooku du concurrence. transformation daal wërsëgu jaam yàlla ku ci nekk sa wërsëg ngay jël di at Touba Mbacké yi barke boobu ba léegi moo topp lii nag dañoo bëgg tamit ay sëñ Muntaxa gi yàlla def ci xéwal am saawaan baaxoon fépp incha allah ci kàttanu oto yi daal baax nañu waaye moom fii ñuy taxaw nii di fi yabe moom du du yoon mënoo ñëw fekk ab ab ab biirab garage nga ñëw taxaw fa samp say oto ñetti garage mënuñoo mënuñoo nekkandoor ci benn place léegi moom du yoon man li ma li may wax mooy ci njiit yi la ñoom la. ñi jiite ñoom ñoo doxalul yoon ñoom seen intérêt la ñuy xool li leen arrangé rek la ñuy xool mais lii moom ku ko xool xam ne du dëgg du yoon lii respecté wu ñun nit ñi waaw ñoom moom moomuñu dëkk ñun moomuñu dëkk mënuñu fee ñun mënuñoo jëlee ci garage bi ñoom itam mënuñu fee jëlee mënuñu fee tey client yi dugg fi kenn ku nekk ak sa wërsëg moom doomu aadama moom li suñ borom bind ci moom kenn mënut a tee mu jot mais lee lee du yoon. ñun ñu ciy jot di saafara mooy ñu ñaan Idika bi nga xam ne mooy président garage bépp moom mooy jiite ñëpp nañu ci dimbale. di di di di maanaam ñi nga xam ñun suñ ñooy chef de garage nañu taxaw fulla fulla ak fayda ah, too doxinu doxin woo xamante ni mooy doxal suñu liggéey ñun loolu lañ loolu lañ am ci lu wax ñu nga xam ne bu ñu ko defoon mooy li war mooy ñoom bi ñu eh, programme indi oto yi dañu waroon ñëw woo suñu njiit yi waxtaan si ak ñoom bu ko defee oto yee mën a ñëw bokk ak ñun ci même garage bi ñu def même tarif bokk liggéey parce que ñoom mënuñu ñu fay jëlee ñoom mënuñu leen fay jëlee mais buñ taxawee fee di yem ñun ñu taxawee di yem ñoom ñu di ay chauffeur ñu di ay chauffeur loolu rafetul ñi ñu jiite ñoom du ñu ay chauffeur ñoom jaxaseñu la ñu bëgg mais ñun ñooy am suñu xel rek xam ni ñuy doxee du leneen. comme ni loolu moom daanaka yoon la woo xam ne am na fi ba pare ndax tata yi bi ko Ablaye Wade di wax ñu bari dañ doon wax naan tata yi buñ dikkee duñ liggéey tata yi buñ dikkee duñ liggéey tata yi teewul ñu ngi liggéey ñii ngi dem jànnatu ñii ngi dem euh, Bagdad ñii ngi dem euh, Ndindi loolu moom bu dikkee fañ tata yi tege lay tege rek ñu ànd liggéey rek maanaam kenn ku ne yërëm sa morom li ma bañ kay mooy nga am sa société boo xamante ne bu am doole la te xañ ne resas ba ngay jël jëmee woo ko ci li jëm ci biir Touba da koy jël di ko génnee jëm Touba muy koom-koom boo xam da nga fay ñëw ngir indi sa doole bopp wan ko waa Touba di jël koom-koom bi di yóbbu te taalibe Sëñ Bamba yi ne fi ñi nga xam ne seen baay dañoo muratu ci daara ja ba wàcc ne fi te war a jariñu ci Touba te Touba taalibe yi rek mooy sa kilifa gu toog lool ngay wax taalibe yi yor Touba ndax sëriñ bi taalibe yi taalibe bi sëriñ ñun loolu lan am soxla nañ ko bu dolli ko nag nu jël waaw bu dolli ko jël soxla woon nañ ko nag bu yàgg waaye bu bu comme que ñëw nañu nii bu dolli ko nu jël loolu moom noo ngi rafet rafetlu wasalaam. fii sam kóllëre loolu dafa am solo lool ci doomu aadama doomu aadama warta bëgg lu yomb dëkk bii fii dafa bari ñoo xay dañoo bëgg lu yomb orom ndaw mënoo cee dugg di fay da ay fukki dërëm yi kenn xamut loolu yan woon maanaa orom ndaw ak oto bu mag mënuñoo mënuñoo yem waaw. fukki dërëm mooy différence bi fukki dërëm du dara fukki dërëm du dara li ma wax ki ne avant oto yi di fi ñëw ñi ñoo fi nekkoon nañ continuer di dugg ci yi ñu doon dugg lu dëgg du yàgg waaw man loolu laa ciy wax waaw.